bi loolu wéyee pool bàyyi ko aten dem korent mu tase fa ak yawut bu tudd akilaas te juddoo diwaanu pont muy a jóge réewu itali ak jabaram pirisil ndaxte buur ba kulood sant na yawut yépp ñu génn rom noonu pool seeti leen te ginnaaw ñoo bokk liggéey maanaam di defar ay tànt mu dal fa ñoom ñuy liggéeyandoo bésu noflaay bu nekk nag muy diisoo ak ñi nekk ca jàngu ba di jéem a gëmloo ay yawut ak ay grek waaye bi silaas ak timote jóge diiwaanu maseduwaan àgg fa pool jublu ci xamle kàddu gi tey dëggal ci yawut yi naan yéesu mooy almasi bi bi ko yawut ya gàntoon nag di ko xas mu yëlëb ay yéreem ne leen yéena sàkku seen musiba set naa ci léegi maa ngi dem ci ñi dul yawut ci kaw loolu mu jóge fa dugg ci këru ku tudd tisiyus yustus di ku ragal yàlla te kër ga dend ak jàngu ba krispus nag njiitu jàngu ba gëm na boroom bi ak waa këram gépp te waa korent ñu bari dégg kàddu gi te gëm ko ñu sóob leen ci ndox naka noonu borom bi feeñu pool ca guddi ne ko bul tiit dara waaye del wax te bañ noppi ndaxte maa ngi ànd ak yow te kenn du la jàpp ba fitnaal la ndaxte am naa xeet wu bari ci dëkk bii noonu pool des at ak genn wàll ci seen biir di fa jàngale kàddug yàlla ci nguuru galyoon ci diiwaanu akayi nag yawut ya likkoo ñu dal ci kaw pool yóbbu ko ci attekaay ba ñu ne kii day xiir nit ñi ci màggal yàlla ci lu juyoo ak yoon wi bi pool bëggee wax nag galyon ne yawut ya yéen yawut yi bu aju woon ci jàdd yoon walla ñaawteef yu réy kon lii yoon mooy ma déglu leen waaye bu ajoo ci ay werante ci wax ak ay tuur ak seen yoon loolu seen wàll la man duma ko àtte noonu mu dàq leen ca àttekaay ba ci kaw loolu nit ñépp jàpp sosteen njiitu jàngu ba ñu di ko dóor ca kanamu àttekaay ba waaye gàll faalewu bi loolu wéyee pool desati fa fan yu bari ginnaaw ga mu tàggatoo ak mbokk ya dugg gaal jëm siri ànd ak persil ak akilaas bi mu jógeegul teerub sansare mu watlu boppam ndaxte am na lu mu digge woon ak yàlla noonu ñu teer ci efes pool bàyyi fa ñamu mu àndaloon daldi dugg ca jàngu ba diisoo ak yawut ñu ñaan ko mu des fa lu gën a yàgg waaye nanguwul kon mu tàggatoo ak ñoom naan dinaa dellusi ci bu soobee yàlla noonu mu dugg gaal jóge efees teer ci dëkku sesaare mu dem nuyu mbooloom ñi gëm ba noppi dem antiyos bi mu fa desee ay jamono mu jóge fa di jaar dëkkoo dëkk ci diwaanu galasi ak firisi di dooleel xoli taalibe yépp amoon na nag yawut bu tudd apolos te juddoo aleksandri mu dikk efes nit ku yeewu la woon te am xam-xam bu yaatu ci mbind mi jàngoon na ci yoonu borom bi di ku farlu ci xelam muy xamle ak a jàngale bu wóor ci mbirum yéesu waaye fekk xam-xamam yem ci ni yaxya daan soobe ci ndox noonu mu daldi wax ak fit wu dëgër ca jàngu ba bi ko pirsil ak akilaas déggee nag ñu woo ko fi ñoom gën koo leeral yoonu yàlla naka mu bëgg a dem akayi mbokk ya xiir ko ca ñu bind taalibe ya ngir ñu teeru ko teeru bu rafet noonu mu dikk fa te jariñ lool ñi gëm jaare ko ci yiwu yàlla ndaxte ma ngay yey yawut ya ca kanam ñépp di firi mbind yi ba wone ni yéesu mooy almasi bi